salaamaaleykum amateur de foot nuyu leen ku ci nekk seen tur ak seen sant wallaay ndeysaan mais gars yi Habib Diallo mii war nañoo wax ak moom de macha allah gars yi bëgg naa nag bépp vidéo may defar suñu international Sénégal ci bii ñuy dugal ak passe décisif ngeen koy partagé bu baax a baax bu ko defee suñuy dirigeant nga xam ne ñooy ŋànk football bi ñu mën a conscient xam xel ñi nga xam ne ñoo nekk ci performance yi am solo ñu ne ci meilleur niveau ak ñoom seen. te bañ di favoriser ñenn ñi tegee ñenn Habib Diallo mii vraiment ki jot nañu xool ay mbiram mu ngi noonee ah tamit xaw ma nag suñu dirigeant yi ñooy gumba dëxlu ñooy xam bàyyi ci biir dëgg seen tànk xaw ma nag ñoom ñoo dul xam performance suñu international sénégalais yi def a ah, tamit mu ngi noonee balaa ñu dugg gars yi ci performance bu am solo bi nga xam ne Habib Diallo def na ko tey def dugal bii def passe décisif moo ko kee di jara suñu beneen international sénégalais boobu suñu beneen sénégalais bi boobu dañ leen indi résultat match yi nga xam ne jot na am foofee ca Ligue 1 française njëkkee ko match bi doxoon diggante Angers international sénégalais nekk fa ak euh, ñaar lañ sax Sada Thioub ak ki ñu naan euh, Abdallah Sima ak Monaco bu ñoom Krépin Diatta Monaco nag moo dóor euh, Angers bu ñoom Abdallah Sima deux buts à Abdallah Sima moom moo mujjee dugal gis nañu Ajaccio mook Toulouse dañoo bi partout Auxerre nag bu ñoom Mbaye Niang dañoo mujjee nul un bi partout mook Clermont bu ñoom Arial Mendy gis nañ ne nag Lorient moom moo nax ki ñu naan Brest dóor ko deux buts à Lorient dañoo am rouge bu ñoom Cheikh Ahmadou Bamba waaye ñoom ñoo mujjee dóor Brest deux buts buts à 1 bu jógee foofee gars yi dañuy ci match bi xam ne doxoon na diggante euh, Strasbourg ak Nantes euh, Strasbourg ñoom Habib Diallo moom nga xam ne moo dugal premier but euh, Strasbourg def passe décisive jox ko kan Habib Diallo moom ngeen gis si côté boobu doon sénégalais moom it dugal bi def la break permettre ki ñu naan Strasbourg mu dóor Nantes deux buts mais gars yi Habib Diallo ji niveau bi mu toll nii macha allah actuellement vraiment mu ngi def loo xam a française 18 bi tamit actuellement dab na ki ñu naan Mamadou ñaa ci wàllu meilleur buteur sénégalais foofee ca Ligue en française ci benn saison Moussa Sow ma ne ca kaw kaw mais kii gëm naa ne dina dabi ji Moussa Sow niveau bi mu toll nii moom bu ko bàyyiwul ah tamit à part Kylian day David Habib Diallo mu ngi fay def lu dara jarul ak laa Lacazette mais tamit gars yi kii dañoo war a partager vidéo yi man xaw ma nu mu demee noonu euh, c'est vrai Boulaye Dia actuellement titulaire la bu am solo foofee ci équipe nationale Sénégal bu mën a titulaire indiscutable nag def ci championnat France peut-être équipe nationale Sénégal Habib Diallo dañ ko mayagul maximum de sens boo xam dina mën a illustrer wane boppam mais tamit équipe nationale Sénégal dafa war toll niveau boo xam ne nii dañoo war a am ñaari équipe type. waaw doo tin niveau boo xam ne nii ay concurrent direct dañ war a gis équipe bi ki ne ci biir terrain bi tarfatin ayni bu ko defee ci erreur ki dugg def exploité lu dara jarul bu ko defee kookee xam ne moo doon titulaire mën a am na concurrent direct bu doon def benn day def fukk nag xam ne ne bu defee erreur bu ndaw day ñàkk place am keneen jël ko foofu la ñu doon toll nationale nag jël nañ coupe d'Afrique des nations war a dépassé niveau boobu dem nañ coupe du monde qualifié huitième de finale may ni xaar ci commentaire nan ngeen ko gisee nag jot nañu may kii chance ou pas